wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin seydina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbi zawi ridwan wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa euh, mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaare di jiital ci bi a cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanu suñu borom yàggal ko fi loolu tànd di nuyu mboolem njabootu Sëñ Tuubaa di nuyu mboolem mañ ma woon nooree ni gépp di jiital jëwriñ sëriñ Saliou Fall ak sëñ Baara Gaye mi nga xam ni moo liggéey bi di nuyu baax suñu mbokk yi nga xam ni ñooy ñooy ñooy jàllale émission Jaalibatul Buruur ku ci mel ni sëñ Mbàkke ak mbokk taalibe yi mu àndal leen sant baax ci euh, liggéey bu rafet bi kon euh, ngeen ànd ak seen mbokkum taalibe Zeyd Ba di Euh, jàllale émission jaalibatul buruur comme niñ ko daan defee ñu ngi lu baax nag euh, émission bi jamono yi xawoon naa taxaw waaye programme yi newoon suñu kanam moo bari woon loolu waaye dinañ ko jëmmalaat bu baax a baax baax comme niñ ko daan defee di ci jàllale xam-xam tey nag ñu ngi dalal suñu mbokkum taalibe di sëriñ Alioune Ndiaye ñu ngi lay nuyu baax di la ziar moom lañ dalal tey jii ñuy fas def plateau spécial jëmale ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke al muwaqidul akbar li safil muridiya moom lañ ko fa yéene defee muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke mi nga xam ni mooy moom moom moo benn loo murid moom moo defar sàppe murid yi ba mu jub xocc gannaaw ba fi sëriñ bi jugee tey nag waxtaan wi ci moom lañ ko fa yéene jàllale ñu dalal suñu mbokkum taalibe bu baax a baax di borom xam-xam di sëriñ Alioune Ndiaye di ab di professeur di jàngalekat kon mel na ni waxtaan wi moom lépp dina fas yéene tegu ci xam-xam ndax boroom xam-xam bu mati sëkk lañ lañ lañ lañ dalal kon dañuy ñëw fas yéene xam naa balaa ñoo dugg ci waxtaan wi rek ñu présenté leen tomb yi ñu fas yéene waxtaane bu ko defee ñu xam ko bu baax tomb bu njëkk bi ñu ngi ko fas yéene jëmale ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mawlidu wa nashatuhu muy ak gane àddunaam xam naa dañ koy résumé ci euh, minute yu gàtt bu ko defee euh, dinañ ñëw ci euh, tomb bu njëkk bi muy njariñul waxtaane sëriñ Moustapha ak fi jamono toll ñaareelu tomb bi naka la sëriñ bi waajalee sëriñ mu Moustapha ngir mu mën koo taxaw bi mu fi jugee ñetteelu tomb bi mooy taxawaayu sëriñ Moustapha sëriñ Modou Moustapha ci yóbbu sëriñ bi Touba mooy sëriñ mag bi mu fi jóge ni ko waajalee ba ni mu ko jébbalee boroom ak ak ni ko uutoo ci njaboot gi ak ni mu taxawalee jumaa ji yaakaar naa ñetteelu tomb boobu moom moo ëmb lool lépp loolu lépp nag bu soobee yàlla sëriñ Alioune Ndiaye dinañ ci fas yéenee andil kon xam naa dañ dañ leen bàyyeek moom rek bu ko defee mu nuyu après ñu doog a ñëw ci waxtaan wi bisimilah sëñ Alioune. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi barke borom tuuba ñoo ngi nuyu mbokk yépp di leen ziyaara di leen baalaaq te leen ko baal xam naa di jéggalu ci kàddu yu baax ndax ñàkkul ni borom xam-xam dina ko seetaan te ñun day mel ni dese nañ kaa mate xam naa ni ko sëñ Zeyd waxee rek day mel ni nuyoo geeg ziyaar gi ak joxal ngant gi ñu ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xamante ni moom mooy kilifa ak yoon gi di ñaan kéemtaanug dund yàlla na ko suñu borom feeñal ci moom yàlla na dund ba jaaxal ñu barke xasida yi di ziar ñëpp rek waaye di ziar Cheikh nga xamante ni jamono ji moom mooy xalifa Daaru te ñu waajal ñuy waajal màggalu Daaru Xuddoos waral plateau bi di ziar sëñ ak waa kër sëñ Mbacke Madina gi yëpp di sama kilifa wook sëñ Moustapha Madina bu ko defee comme ni nga ko waxee rek xam naa ne ni borom xam-xam moom sori nañ ko waaye teewul danañu jéem lu ñu mën rek lépp lu ci gàgg aussi xam naa ni borom xam-xam yi bu ñu ko gisee incha allah dinañ ko gàggante jërëjëf sëñ Zaid. ok jërëjëf sëñ Aline ni nga ko waxee rek euh, ñu fas yéenee jëm ci waxtaan wi fas yéenee leeral lenn ci melaw Cheikh Mouhamadou Moustapha. Cheikh Mouhamadou Moustapha nag yaakaar naa yoonu murit ñëpp xam nañ ko mooy ki njëkk a wuutu Serigne Touba Xaadimu Rasul ba mu fi jógee waaye buñ doon wax ak gane àddunaam Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ko ci Irwa un Nadim fi hasbi xubbil xadim nee na Cheikh Mouhamadou Fadal moo ko wax ni ko Serigne Moustapha mi ngi gane àdduna Daaru Salaam guddeeg ci fukki fan ak benn ci muharram mooy weer wi ñu nekk ci amu wasas dëppoo gàddaay yi 1306 ci atum tubaab mu tolloog 1888 euh, mooy njëkk sëriñ bi di tuxu di di di di jóge Daaru Salaam dem Touba hmm. ndax ndax ndax sëriñ bi ci jumaa da saaniye ci la ci la tuxoo Daaru Salaam daal dem sañ sañ ci Touba bu dee sëñ sëñ Fallou nag moom mi ngi gën a ci Kazu Rajab moom yaakaar naa ñëpp xam nañ ko muy ñaar fan ak ñaar ci ci ci Kazu Rajab yaakaar naa diggam ak Cheikh Mouhamadou Moustapha fukki euh, juróom-benn weer lañ rawante mhm. kon sëñ Moustapha sëñ Mouhamadou Moustapha noonu la ganee àdduna way bi mu ganee àdduna tamit war a dal jàng sëñ Tuubaa mi ngi ko jox nijaayam Cheikh Ibrahima Faati waaye na sëriñ bi moo leen dalal am jàng moo Cheikh Mouhamadou Fadal moo leen dalal bisimilahi rahmaani rahim doog leen a jébbal Cheikh euh, Cheikh Cheikh Ibrahima Lo doog leen a jébal jébbal Cheikh Abdourahman Lo moom moo leen jàngal alxuraan ba ñu mokkal ko ba ñu bind ko gannaaw loolu ñu doog leen a jox Cheikh Ibrahima Fati kon mel na ni mm, loolu buñ ko doon résumé ci ganek àddunaam ak ni mu jàngee mën nañ cee wax loolu rek mën nañu wax ni tamit bind na ñeent fukki kaamin ak ñaar jébbal ko Cheikhul Khadim moom Cheikh Mahamadou Safa bañ na ko bi sëriñ bi nekkee Gabon bindoon na kaamin boo xamante ni euh, da ko jébbal maam Cheikh Anta ngir mu yónnee ko sëriñ bi ñu jox ko ku ñuy wax Mamour nduur defe naa su ma juuma tur bi noonu la maam Mamour nduur moom la moom la maam Cheikh Anta yónni woon Gabon mu moom moom moo yóbbaale woon bi sëñ Moustapha bindoon ngir mu yóbbal ko sëñ Tuubaa kaamin boobu yaakaar naa Kamal lañ ko tuddee woon sax Kamal lañ ko tuddee woon moom moom noonu la ganee àdduna Sëñ Tuubaa moo ko yaral boppam tarbiyaal ko boppam moo Seex Muhammadul Faadal daan leen bi muy dem bi sëñ bi nekkee gànnaar tamit fekkoon na ko fa sëñ bi daan leen tarbiya ci xeetu comme ni mu daan tarbiya muridi mu nekk sarsaara ak jarraari ak lansaar yooyu yëpp daanaka foofu yëpp nekk na fa ak sëriñ bi nekk naa ak sëriñ bi tamit téyeen jolof kon mel na ni kon am njàngam ak xam-xamam lu leer la ak gane àddunaam tamit maanaam ci wayjur yi tedd soxna Aminata Lo mi nga xam ne mooy wayjuram di ko tedd doy na sëkk ni ñu ni sëñ Tuubaa Xaadim Rasul mooy wayjuram kon loolu lañ mën a résumé ci gane àddunaam dañuy ñëw rek kon ci e, suñu gan gu tedd gi nga xam ne moom lañ dalal muy suñ Alioune Ndiaye bu ko defee moom dinañu andil dina gën a yaatal waxtaan wi ci point yi ñu jëm kon tomb bu njëkk bi rek mooy njariñu waxtaane sëriñ Moustapha ak fi jamono toll loolu kon buñ ko waxee dina mën a yaatu bu baax a baax ndax ku ne xam na ni Cheikh Mouhamadou Moustapha ab université la kon kooku mel na ni boo ko waxtaanee maanaam njariñal waxtaane ko mooy fexe ba nit ñi mën a roy ci moom ak xam fi mu jaaroon ak fi mu tolloon ci xam-xam ak xel ak fii jamono toll kon yaakaar naa waxtaane sëñ Moustapha lu lu am njariñ lay doon kon sëñ Aliñ dañ lay bàyyi nga ñëw ci tomb boobu nga ci ay leeral bisimilah. jërëjëf sëñ Zaid day mel ni bu ñu ñëwee fii jamono toll moom ku nekk mën nga ci am xam-xam bu leer ndax dañuy wax ni wala dinaa wax ni jamono fipp la ak fetteerlu jamono fii mu toll. Mhm. jamono fipp la ak fetteerlu. fipp ak mhm. fetteerlu nag day mel ni am na ute. Mhm. ndax bu fekkee fipp moom day mel ni dañ lay noot ngay mel ni kuy jëliloo moom. waaye fetteelu moom mooy ëppal ci jamono ji nag foofu la tool ci anam bu nekk. day mel ni tey boo xoolee ci liñ naan si le plan socio-économique mooy tey jii ndaw ñi boo xoolee ndaw ñi jamono jii ni ñuy utee ndax jamono noot na leen ba gëmloo ni leen. ku amul rek tekkiwoo dara loolu ab nooteel la. day mel ni noote nooteel psychologique la nag. du nooteelu boo xamante ni da ngay gis kàttan gi waaye nooteel la boo xamante ni ci xel lay dox. ñu gëm loon leen ko amul rek tekki woo dara hmm. ñoom ñu fippu bëgg a uti waaye fettirlu moo tax ñuy jël gaal hmm. loolu noonu lay tëdde foofu hmm. boo xoolee lu jëm ci mbiru politique gis nañ ni kat ndaw ñi gis nañ ni kat ñenn ñi ni ñu yore réew bi gënalu leen fippu nañ waaye nañ kay wane day mel ni fettal la dugg na ci ndax ñoo ngi dem ba ay bakkan di ci faatoog yu ne du ci am yàq di ci am boo ñëwee ba ci diine ji day mel ni féttalu googu it bu ci raw moo fi nekk rek ndax bari na nu ñuy doxee ak nu ñuy waxee ak nu ñuy jëfe noo xamante ni sëñ bi diglewu ko waxu ko waaye dañ naan tolluwaay laag yëg-yëg laag yooyu rek lañ koy layale te day mel ni bu fekkoon ni dellu woon nañ ci jàngaleem Cheikh Modou Moustapha moom dafa ne woon ni sëñ Touba mooy sama baay gërëm na ma ay yoon waaye am njuboo ma doy am njuboo ma doy kon day mel ni doxin yi bari na waaye day mel ni doxin yu ci bari safaanoon ak njub Mhm. waaye ñoo ngi koy layee lu nekk daal ke ni tolluwaay la loolu nag suñ demee ba àgg ci jamono jooju day mel ni waxtaani ku mel ni Cheikh Modou Moustapha nga xamante ni li ko woykat bi waxoon dafa ne ko woon yow mii ñu tuddee Moustapha yaa jëf lu jommal surafa mhm. daaneel nga mbëri soo soo ko dem parce que bu ñu naan yaa jëf lu jommal surafa te Cheikh Modou Moustapha li mu jëf ci àdduna ak ci jamono jim ko jëfe ak moyens yi disponible woon ba léegi ni dabag ko ndax ci productivité Cheikh Abdou Moustapha ci productivité moo xam bay moo xam réalisation chantier yi moo xam yaru doomu sëñ Touba gi ba ci yóbbu gi mu yóbbu sëñ Touba Touba rek lu sottal lu mel noonu ci jamono gi mu ko sottalee amagul moom ndax tubaab bee ngi fi woon li mu doon xaar leen képp la mooy sëñ Touba jóge fi ñu jàpp ni bu fi jugee yoon bi tas ñoom loolu la ñu waxoon ñoom dañu bu fi sëñ bi jugee rek yoon day tas moom ginnaaw loolu it biir njaboot gi it ñëpp xam ne ak ak ak bokk gis-gis am na ci waaye it ci jamono ji mooy jamono joo xamante ni sëñ bi bi fi jugee ci juillet bi. Mm. ci nawet googu noonu ci la bekkoor commencé. nga xamante ni moom at boobu moom ni ko sëñ Moussa Ka waxee ne ko yaay atu nakar ak bekkoor. Mm-hmm. waaw nga xam ne daaw heure bii ñu ngi góor. Mm, at ba ca topp mu ñëw gën a doy waar. Mm-hmm. mu ne ko ñu doon xaar ren ngir mu tane daaw. mu ñëw gën a yées sëñ Modou Moustapha ci jamono yu mel noonu ci la sottal yi mu sottal waaye nag li ci am solo mooy tegu ko ci baatin tegu ko ci am-am maanaam ci xel mu sell képp la ko teg nga xamante ni xel moom mooy dénominateur commun nit ñëpp képp kuy nit kon jamono la joo xamante ni képp sëriñ la boo xamante ni wala jëmm la joo xamante ni ñëpp a mën a roy ci moom ndax jëfandoo ko loolu xel kon bu ñu demee kon ba jamono nga xamante ni ñëpp rek jàpp nañ ni ak féttéerlu mooy rek régler mbir mi mhm. kon dana laaj kon ñu jël ku mel ni sëñ Modou Moustapha nga li mu sottal ba léegi kenn mu sottalegul lu mu toll mhm. moo xam muy nitu àdduna moo xam muy nitu diine amul kenn ku sottalegul li mu toll mhm. te li mu sottal yëpp ci xel képp la ko teg kon njëriñu waxtaane sëñ Modou Moustapha ci jamono ji donc ci noonu lañ koy tënkee sëñ sëñ Zayd waaw koy jërëjëf sëñ Aline comme ni nga ko waxee rek Cheikh Mouhamadou Moustapha njëriñal waxtaane ko moom yaatu na loolu waaye comme li nga wax rek daanaka mel na ni loolu dafa li daloon sëñ tubaa ci li mu sottal ci ak dundam mm-hmm. mooy li mu bind ak euh, li ko suñ borom jaraloon ak liggéeyal yonent saa sallam ñu bari daanaka dañ ko ñu li ci bari dañ ko teg ci baatin mm-hmm. te mel na ni sëriñ bi ak njàmbaaram mm-hmm. ak fullaam ak faydaam ak ak jaayanteem ak kam li mu bëgg lu bari moom moo ko may nee nañ am sëñ fàllu bi mu demee ci maam maam Cerno ba euh, mm, sëñ Abdoulaat bi mu demee ci maam Thierno Daarul Moxti nga xam ne maam Thierno jox na ko addi waaye dani ko lenn da laa lay mooy sa baay ba lépp lu mu am rek ngor ak jom moo ko may waaw kon nga xam ne kon suñ Moustapha euh, bokk na ci liñ ko war a gën a mën a royee mooy fexe ba li la war li la war li la war nga war ko mën a doxal nga nga nga jiital ci fulla ak fayda mm. ak maanaam ak xel mu ñëw ak xam-xam juréy ndax yaakaar naa bu ñu duggee ba ci biir waxtaan wi loolu lépp dina ci gën a feeñ incha allah kon euh, loolu am na solo loolu dañuy ñëw ci ñaareelu tom bi mooy naka la sëriñ bi waajale sëriñ Modou Moustapha ngir mu mën koo taxaw hmm. waaw sëñ Seyid moom li ñuy njëkk a xam mooy projet bi moom projet sëñ Touba ci boppam. Hmm. sëñ Touba ci boppam moo am benn projet. Hmm. projet bi mooy am mbooloo moo xamante ni donc am na ñu ko tuddee société waaye di nga gis ni buñ fekkoon ne tamit sax dana romb loolu. Mm-hmm. waaye mbooloo moo xamante ni ñu tënkee ko mbooloo boo xamante ni. Mm-hmm. dara du leen yitteelu lu seen jëmmi boroom moo war a mm-hmm. turu muridulaahi du turu muridulaahi du sëñ Tuubaa for nii rek. waaye day dafa dafa am objectivité par rapport ak sëñ Tuubaa bëgg. mooy mbooloo boo xamante ni seen yëngoog seenug dal dara du leen yitteelu lu jëmee bu suñu borom. mooy wala tamutu illaa wa antum muslimun ngoog alxuraan waxoon mhm. nga xam day am soumission totale seen diggante ak seen borom mhm. sëñ Tuubaa looloo nekkoon yitteem mhm. projet boobu nag ba mu ko amee mu xam ni loolu ngir mu am daa am yoo xamante ni mënu kaa ñàkk moom mooy dëkk boppam ndax loolay tax lu mu fa bëgg lu fa bëgg a sottal sottal ko fa lu mu fa bëgg def def ko fa te kenn du téye loxoom loolu covid bi wane na ko bi ñu ñëwee ñu ni kat nañu tëj jàkka yeeg jumaa yi lan moo tax jumaay Tuubaa mënu ubbi Mm-hmm. li mu nekk ci dëkk Sëñ Tuubaa moom moo tax. Mm-hmm. yar gi mu bëggoon it na mu ko bëggoon a defee il fallait que mu dëkk boppam kon mënta am li mu bëgg mënta am te amul dëkk boppam. Mm-hmm. moom Sëñ Tuubaa moom Sëñ Tuubaa ci projet bi nga xamante ne moom la bëgg. bi ci pop bi ci topp mooy ressources humaines de qualité mooy ay nit yu mat ressources humaines de qualité loolu il faut que ñu xam ko mooy doyul la nga ne ab murid laa. waaye Sëñ Tuubaa moom li mu woote moom bala ngaa bokk ci mbir mi moom faaw nga nekk koo xam da ngay dox mat. mooy ressources humaines de qualité. Mm. moo tax xoolal Sëñ Tuubaa li mu woote yëpp li mu woote yëpp ba ni mu génnee ba ni mu ñëwaatee xoolal yëkkatiwul xeer teg ko Tuubaa. Mm-hmm. laataa muy teg xeer njaaree maam fi mu nekkoon yëpp mooy moo ngi doon defar ay nit yoo xam ñu mat la ñu nekk. looloo nekkoon ñu téem kese. Mm-hmm. waaye ginnaaw ressources humaines de qualité mooy ab plan. Mm-hmm. ngir dëkk bi muy mat la wu foofu ni bi. waaye après autonomie tamit mënu cee ñàkk. parce que la mu leen waxoon nag loo fekk bëgg rek na fekk ngeen mënal ko seen bopp. Mm-hmm. ndax ku leen mënal sañal leen. Mm-hmm. te yàlla nay fekk lay war a sañal. Mm-hmm. loolu leen sëñ bi waxoon moog sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou ak sëñ Modou Moustapha. mel na ni jamono yi autonomie boobu moom la sëñ Mouhamadou Mountakha sax. doon doon doon leeralaat. moo ngi noonu. ndax mënta ñàkk ndax li sëñ Touba bëgg moom moo tax. waaye beneen bi topp mooy li ñu ti li ñuy tuddee sécurité idéologique. mooy lépp bu dajee ba pare dañuy moytu xalaat. di duggu waxtu bu nekk di ruur mbir mi. Mhm. léegi dañuy bëgg léegi gisuñu sëñ bi. ak doxin bi am lu ko am am lu ko aar. Mhm. loolu dañuy tuddee sécurité idéologique. léegi loolu ngir mu mën a am faw mu am benn kilifa goo xamante ni. Mhm. ñëpp mën nañoo joxe seen xalaat waaye kooku moom fa mu joxe rek mooy yoon ba. mooy kilifa gi. kon yii moom sëñ Tuubaa xam na ni moom li mu bëgg ngir mu am yii mënta ñàkk dëkk faw mu am ko. ressources humaines de qualité faw mu am ko. faw mu am plan faaw mu am autonomie faaw mu am sécurité maintenant ressources humaines de qualité bi léegi nag lan mooy daje ñu ni kii kat ab taalibe bu mat taalibe la wala ku mel ni sëñ Tuubaa bëgg ku ni mel la. Mm-hmm. muy ressources humaines de qualité bi. Mm-hmm. faaw mu jàng am xam-xam. ginnaaw xam-xam faaw mu xam-xàmmee. Mm-hmm. parce que xam ak xàmmee bokkul mooy connaissance en compréhension bokkul. faaw mu xam xàmmee. yaru yeewu. àgg. ba pare jekku économie daal di ñëwaat. da ngay xam xàmmee yaru yeewu mm-hmm. àgg si suñu borom jekku sëñ bi ci yii la kon mag ñi mm-hmm. ngir ñu nekk ay nit ñu mag ñu mat ngir mën a àggale projet bi mu bëgg mm-hmm. mais lii nii ñu xam ne ñu bàyyi xel ne lii bi muy am bi muy mat ci mag ñi boobu sëñ Modou Moustapha mënagul lu bari nga xam ne pour lii nii sëñ Touba bëgg nii man na ba noppi ba doxal ko ba commencé kaa doxal sëñ Modou Moustapha di doog a mën lu tax ñuy wax. ndax bi muy dem maam Thierno la ko bàyyal. Mhm. suñu Fall dafa ne suñu bàyyi Thierno moo ñu yar moo ñu jàngal bañ ñu nër. Mhm. mu yar moo ñu jàngal bañ ñu ar mu yar nu bañ ñu nër. Mhm. te kon te maam te maam Thierno ci projet bii la sottee moom. ñeneen ñi mu bàyyi woon ci ginnaawam aussi ci projet bii la ñu sottee. te sëñ bi bi mu demee ci géej gi boobu sëñ Moussa Moustapha juróom-ñaari at la am. kon ginnaaw gi kon ñu doon doxal yoon bi ci projet bi la ñu sottee. kon sëñ Modou moom élément wu projet wu sëñ baala parce que jamono ji li tax loolu jaral a leeral mooy jamono ji day mel ni ku nekk day waxee ci sëriñam mel ni bu dul woon sëriñam mhm. du sotti mhm. <laughs> te fekk ni moom mbir moom kenn rek la cest moom ñun ñëpp ci gisam ci gis-gisam lañ dugg mhm. waaw moo tax sëñ Fall daan wax loolu noonu daan na wax ne ki ma joxe ki ma joxe kumu mu joxewul te joxul la kam ma joxoon xam naa ci alxuraan loo xam ne xamoo ko ci loolu tamit sëñ Fall daan na ko hmm. waaye sëñ Modou teewul mën nañoo am ne am na particularité hmm. am na particularité hmm. ndax d'abord ci tànn gi ndax soxna Aminta Lo mooy waajur wax nga ko ndax waykat bi daf dafa ni ko li tax amoo dendandoo jegle nga am ci turandoo ngir koo fi bokkal turandoo Aminata doon ndayam baa bu Amina doone Aminata doon ndayam Mhm. seexul xadim du waajuram mhm. te du am ngor gi nga am gi jagle yow rek a ko am nga xam ne ak tànneef la moom soxna Aminta Lo soxna Aminta mhm. ñu xam ne moom mooy jigéen gi njëkk a joxe bakkanam ci yoonu murit comme di diine islam di si jigéen njëkk joxe bakkanam soxna Aminta Lo moo njëkk a joxe bakkanam ci yoonu murit keroog bi leen sëñ bi dajalee ngam jabar gi neen suñu borom nee na mat na matal naa waaye bu fekkee ne ci njaboot gi am na ku mën a dem ma toog àggale liggéey bi mm-hmm. soxna amintaloo bu seexluwul sama na ma yóbbu moo tax ñu teg ci ay fan mu dem di taxañi ab ndox suuf maat ko ca la yam mm-hmm. kon koo koy waajur waajur sëñ Modou Moustapha kon soxna amintaloo moom mooy waajuram comme ni nga ko waxee 1888 mm-hmm. année bi nga xamante ni moom la sëriñ Touba gis Touba ci la gane sa àdduna sëñ Touba moo ko dal dem bàyyi kaak maam Thierno. Mhm. nga xamante ne mu nekk diggante maam Thierno sëñ Dame Abdourahman Lo mhm. ak sëñ Mamour Diarra. Mhm. mu dem gànnaar dem na gànnaar fekki sëñ bi. jànk fa xam-xam. ci sëñ bi ndax it liñ doon wax rek jamono jooju gànnaar borom xam-xam yaa ngi fa. téere yaa ngi fa bari lool te it egsi wuñu fii. sëñ bi profité ci loolu indi ko moog sëñ Fallou. ngir ñu nekk foolu foofu. bi ñu ñëwee ci nit tarbiya ga foofu la maam ni ma leen tarbiya gànnaar noonu la wéyalee tarbiya ci yéen mhm. ba tur googu ñu naan njañ sëñ Modou tur turuñ turam googu ñu naan njañ mhm. foofu la foofu la woon ndax sëkkal gu mu sëkkaloon karaw karaw karaw gi mhm. bañ ni boobu la ko sëñ bi woo ne ko Modou Moustapha loo jublu ci lii mun ko xanaa bëgg a ndóor taalibi rek ne ko lii daa am ñeneen ñu mu nekk seen cër yow sunna laal tànnal ba mu ñëw njaareem ànd ak ñoom bi mu ñëwee nag ba njaareem diggante 13 14 15 ci la leen diggal moom sëñ fa moom ak sëñ Fallou ñu daal di dem sampe ay samp samp samp ay dëkk uti ay dëkk nga xamante ni mm. loolu it yitte goo xamante ni ndaw ñëpp war nañ cee jàng mooy sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fall bi ñuy am vingt cinq ans lañ taxawal dëkk dëkk pas kër pas tabax kër yor soxna mais dëkk ay dëkk waaw ay moom koy ay dëkk waaw mm-hmm. xam ne ginnaaw gi nag ci lañ wéyal nag maam sanc dëkk googu noonu mm-hmm. nga xam ne sëñ daanaka ci vingt cinq ans boobu noonu rek ci li sëñ Tuubaa bëggoon ci moom mooy ni mu ko waajale mm-hmm. ci bi muy am vingt cinq ans Tuubaa bi bind na rapport di leen wax kilifaam naan leen mhm. sëñ Modou Moustapha ak maam Thierno bu yeboo ngeen bàyyi leen xel mhm. te la mu waxoon ci sëñ moodu Modou Moustapha mooy moom kat ku yewwu la te mën a maslaa nga xamante ni la ñuy wax ci yeewu gi te gi ñuy wax ci moom mu ñu teel a gis la ci moom mhm. nga xam ne laataa sëñ bi di dem it sëñ bi di dem mag ñi mu nekkaloon mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ak sëñ bi teel nañoo gisit matam ci moom ndax boo ñaaxeen dëkk bi ñu naan ñaax maam Cheikh ci boppam moo ko en 1922. 1922 mhm. ne ko ma santale ko sëñ Touba ci sant gi mu la sant. ndax ni ngay suñu taaw te mel ni nga mel. sëñ Daaru asan moo jiitu sëñ bi. Mhm. sëñ Daaru Assane Ndiaye. Mhm. moo jiitu sëñ bi waaye laataa muy dem su ma en 1924 la dem mais laataa muy dem newoon na jabootam ak lu mën a xew bu leen réeroog sëñ Modou ndax li ma gis ci moom. nga xamante ni sëñ Muntaxa li muy wax da nga sëñ Muntaxa moom daa mënta wax sax sëñ Modou Moustapha moom heure moom da ngay gis dafa am jafe-jafe ngir wax sëñ Modou Moustapha waaye wax ji benn la rek soo xoolee ak mat ngay gis mm-hmm. soo dégloo ak mat ngay dégg mm-hmm. kon nii la ko sëñ Touba waajale ba tax mm-hmm. mu mën a taxaw li nga xamante ne moom la taxaw ci ginnaawam sëñ Zayd macha allah jërëjëf sëñ Aline kàddu googu point boobu leer na nañ comme ni nga ko waxee rek dafa doon koo xam ni sëriñ bi da koo waajal ndax dafa euh, wiraasatul kubra gi mu war a def mooy maanaam dond gu rëy gi mu war a dond ku tedd gi al wiraasatu al uzma maanaam bokk na ci mooy teen yi mu yi mu gas. xam mm. naa aynu rahmati moo ko gas. Mm. te diggante mille neuf cent cent onze douze. Mm. te boobu sëñ baa ngi fi. boobu te aynu rida tamit teen bu ñu aynu rida ak teen bu ñuy wax xuma njañ faal lañ faal lañ koy tuddee ak yeneen teen yoo xamante ne ci biir tubaab moom sëñ Moussa moo ko gas te booba sëriñ baa fi. yaakaar naa dëkk yi ngay wax tamit ni moom la sas bi mu koy sos dëkk bi mu njëkk a sos mi ngi tudd tindoo Tindoodi. sëñ Tuubaa moo ko de tudde xusnu maab waaw daat daat fa euh, dëkkal na fa lu bari ci ay taalibe bokk na ci dëkk ya euh, noonu la taxawalaal itam ay ay marakis marakisu tarbiya taalib mooy école yoo xam ne dafay jàngale ak yar ak liggéey bokk na ci euh, ni mu yaatalee am mbay te booba yaakaar naa comme at yi nga xam ne ci la toll muy ay fukki ñaar fukki at juróom bokk na ci dëkk dëkk bi nga xam ni tamit moo euh, sëñ Tuubaa moo ko sos euh, moo moo moo ko tuddee boqaatul mubaaraka muy muy Jurbel yaakaar naa bi fi bi fi sëñ bi jugee moom moo ko moom moo ko dundalaat dundal gu yéeme bokk na ci dëkk yi daarul bayda ak euh, ak daaru salaam daarul minan ak ñaaxin waaw ak dëkk bu ñaax jullu mi ak daarul islaam yi dë muy muy dëkk yu bari yoo xam ni suñ Moustapha bi mu koy sos booba ku tedd ki mi ngi fi kon loolu lépp def mel ni ak waajal waajal gu ko suñ Tuubaa waajal la te xam ni ki ko war a wuutu doonul warul doon koo xam ni day tëdd di nelaw rek wala day toog di xaar ñu koy dimbali ci dara yaakaar naa buñ ñëwee ci yeneen point yi dina dina gën yaatu bu baax a baax a baax ci taxaw gi mu taxaw suñ Tuubaa bi bi bi fi tedd ki jógee ni mu ko ni mu ko yóbboo Tuubaa kon dañuy ñëw ci eh, ñetteelu tomb bi mooy taxawaayu sëriñ moodu Moustapha ci yóbbu sëriñ bi Touba ak uutu gi mu uutu sëriñ bi ci njaboot gi ak taxawaayu jumaa waaw. bu fekkee taxawaayu sëriñ moodu ci yóbbu gi mu yóbbu sëñ bi. Mhm. yóbbu gi yóbbu sëñ bi Touba. Mhm. am nga way bi waykat bi dafa ne woon utu sëriñ bi doy na ndam. Mhm. yóbbu ko Touba doy na ndam. tabax suñu jumaa ji doy na ndam. waaye wuuteeg nduroog yonent bi tamit nag mu ëppi ndam. Mm-hmm. waaw bu fekkee yóbbu gi Touba dafa ñoroon suñ Touba moom loolu lu ñoroon suñ Touba la. Mm-hmm. yóbbu gi mu dem gi war a dem mm-hmm. te it Touba bi ci boppam feeñaloon yéeneem ni moom dafa bëgg moom bu fi sëñ bi génnee moom ñu denc ko Jurbel. ñu ko Njaareem. Touba bi feeñal loolu. ndax comptoir commercial ba nga moo fa nekkoon di dox mu bëggoon mu sax. ndax xam na ni li waral dox googu noonu mooy murit gi nekk gi ñu fi nekk te murit gi nekk gi fi nekk sëñ Tuubaa gi mu fi nekk moo ko waral. Mm-hmm. moo tax boo demee ci rapport bi dañ naan ñoo ngi yóbbu sëñ Tuubaa Tuubaa de façon provisoire la ñu mm-hmm. ndax ñoom dem nañ ba ay ab jamono sax ñu ñëwoon ci sëñ Modou nekk kat. Mm-hmm. sëñ bi kat fa mu nekk fee xam nañ ne yàquwul ba tax na bëggoon dañoo bëggoon rek jëlee ko fa rek indiwu ko njaareem sëñ Modou ci la leen waxoon ne leen ah néew ma du ko fekkee de. néew ma du am de. waaye sama bakkan du ko fekke ci Abdoulaye Thial nee na ca foofu la jëlee xam ne kat képp lépp looy defal sëñ Touba te mu ñor la da ci ciy teg sa bakkan. Mhm. waaw nga xam ne loolu njënoon sëñ Touba la ci la ko sëñ Touba waxee woon ne ko kat su fekkee bu nga ma Touba te xab damul. Mhm. xam leen ni wàcc ngeen maa ci des. Mhm. waaye bu loolu amul du ma wàññi dara waaye yéen lay wàññi. ndax boobaa dana mel ni demalu mu leen fenn. moo tax sëñ du xam loolu sëñ bi it waxoon ko ne ko bu ñu demee ba tabaski jàll ba mu xaram dugg foo nekkoon na nga jege si. Mhm. moo tax mu doog mu toog Touba Kayal bi mu toogee Touba Kayal. Mhm. nga xamante ni benn dimanche la woon maam 17 juillet nga xamante ni 17 juillet 17 muharram 1927. Mhm. ci tamxarit gi noonu. nee na am lu wax ak moom ne ko boo amee ñeent fukki at kaat doo amati kilifa ci kaw suuf. neen loolu jaaxal ko ba mu dem ca ginnaaw am mhm. kilifa yoo fekk ñu wax fa ay baat waaye daal bis boobu mhm. la jóge Touba Kayal daal di ñëw nag jub si njaareem teegul nag mu jaar ci dëkk yi ñu wax sànq yi nga xamante ni jéeg dëkk yu bari mu jaar fa mhm. ba moo ngi egsi njaareem mardi le 19 ci tam xarit ci la egsi njaareem nee nañ moo ngi egsi njaareem diggante bi tisbaar diggante tisbaar ak tàkkusaan mhm. tisbaar weesu na waaye tàkkusaan jotagul mhm. ci leeg si njaareem ñi rek sëñ Modou fii lay tàmbale maam fii fi fi fii fii ngay gis ni matuk sëñ Modou leneen la mhm. ndax ku toll ni sëñ Touba ngay taawam nga ñëw mag ñi nekk ak moom fekk la cib jotaay ne kat sëñ bi kat mat naa nemmiku xam nga bu sëñ bi nekkul waajuram sax waaw bu nekkoon waajuram sax mais ku mel ni sëñ bi ñu ne la mat naa nemmiku man ni mu mel ni mu mel pare teg ci di sa waajur mu ñaari mbir yu daje ndax fan ngii kat nii mu def gëj na kaa def xamuñ ci moom dara sëñ Modou toog ci jotaay bi ba ginnaaw timis doo ko dem xooli sëñ Tuubaa ndax buñ ne woon ndax foofu noonu ca jotaay boobu suñ ko waxoon loolu mu ni bërët la sëñ ba bëggoon du am ndax boobaa mbooloo ma yëpp danañ ca danañ ca àgg te bu ñu demee fekk loolu dana yo du du yomb du yomb contrôler mm-hmm. waaye daa bàyyi ba ginnaaw timis mu dem xool sëñ Tuubaa ànd ak mag ñi mu àndal Cheikh Mamadou Diop Dagana mm-hmm. sëñ Maxtaar Silla ak mag yooyu mu àndal mm-hmm. nee biñ ñëwee ba mu gis li suñu borom def li suñu borom egsi na ak dal feeñaat foofu noonu mooy ku mel ni sëñ bi nga tiim ko jàng la mu bind. Mm-hmm. ànd ak sa dal tourné jàkkaarloog mbo mbooloo mi ne leen ani basiiru mm-hmm. loolu ak dal la. Mm-hmm. te jamono jii mooy li mu wax jamono jii dañ kaa soxla ñu ndaw ñi. dal googu noonu dañ kaa soxla. mu ne ani basiiru ñu ne ko moo ngi fi mun nañ ko woowi ñu woowi sëñ basiiru sëñ basiiru bi mu ñëwee yónnee ne ne nem woowi Seex Mamadu Anta Ndaxi mi nga xam ne sëñ bi sàkk woon na ne na ko waaj na bokk ci ñi koy waajal ñu waaye nga gis li ñu naan démarche inclusive mooy liñ ci ci ci ci ci doxalin mooy tey li mu njëkk def rek mooy ana Basiiru mm-hmm. ndax mun mënul woon a jug moom ca saa moom dem ci dem ci gouverneur ndax ci saa si mënu woon dox ci ci organisation waaye déedéet ci saa si li mu njëkk wax ana Basiiru mm-hmm. mooy nit boo nekkee ci am mbir bokkaak yi nit del fexe di diisoog ñoom mm-hmm. bala ngaa def dara loolu nañ ko jàngi Cheikh Modou Moustapha waaye biñ ñëwee beneen bi top mooy délégué les tâches mooy li ñu naan dé ku nekk nga jox ko lenn. da ngay xool Cheikh Amadou moom la jiital mu yóbbu ko Touba. Cheikh Amadou Tànn ki estam la ñu jël Dagana ñoom ñoo ko defar. moog sëñ Balla Thioro ñoom ñoo ànd dem ci nga xamante ni maanaam seen sëñ Mourou Moustapha maam ni ñuy jàngale ci école yi ci management ci leadership. ni mu ko incarné jamono xam gisagu ko ba léegi. organisation famille bi. Mm-hmm. mais acceptation de l' autorité aussi dañ kaa war a jàngi Cheikh Mourou Moustapha mooy. nangul kilifa gi li mu doon. Mhm. Seydou Moustapha lam moo tax mu ñëw dem ci tubaab bi nekko kat sëñ bi génn na àdduna te dama kaa bëgg a yóbbu Touba. Mhm. mel ni koy tàggu nañ nañ ñi sax tàggu la waaye ndax jamono jooju kookoo di kilifa ci dëkk bi nangu googu mu nangu loolu. Mhm. war nañ mun mën a jàngi Seydou Moustapha. mais it li ñu naan la gestion de l' information mooy jafe-jafe la ci suñu ci ci ci ci suñu ci suñu réew. mooy la gestion de l' information mbir day am day mel ni ñu ko war a yëg wala waxtu bañ ko war a bañ ko warut a yëg mhm. lañ koy yëg loolu jafe-jafe la mais sëñ bi génn na àdduna mhm. ñu yóbbu ko denc ko ba wax ko ni ba maam denc ko ba ba wàññeeku te ñi ko ñëkk ci murid yi matuñ ñeen fukki nit. ba defar barab bi sax ba utal ko buntu. lépp maanaam ñu ñuy doog a siiwal nii. ñu doog a siiwal nii sëñ bi génn na àdduna uh-huh. maam li am am na. Mhm. bañ defar sëñ bi. te ñu ko yëg ci murid yi matuñ ñeen fukki nit. te moom moom sëñ Moussa Wade hmm? demuloon ci ñi ko yóbbu moom ma nga woon ma nga woon njaarim moom de mu woon njaarim toog waaw sëñ Mouhamadou Bachir la euh, hmm. moom la yabal moom la dee yebal ak moom sëñ Mbacke Bousso sëñ Ndam Abdourahmane hmm. ak tandax yi xaw ma Abdoulaye tandax yi Cheikh ndax bu fekkee ne bu fekkee njaarim sëñ Bachir moo fa jógee sëñ Makhtar Sylla Cheikh Lamine Dagana Cheikh Modane tandax ak sëñ Cheikh Khary ñoom ñoo fa jógee ñoom njaarim sëñ Ablaye Diop moom njaareem lu jóge mhm. waaye ji àndul ak sëñ bi moom dafa jaare daal di dem daaru muxti mhm. wax ko maam Thierno mhm. ñii ñag ñoo ànd ak bi ndax duur siis mi nga xamante ni moom moo doon dawal oto bi sax moom xamul woon ni moom sëñ Tuubaa lañ doon moom dañ ni ko rek daa am ay bagages yu ñu doon yóbbu nga xool maam sëñ Modou Moustapha mat googu noonu mooy ci la gestion de l' information ana ñan ñoo ana ñan ñoo nga jox leen information bi c'est-à-dire m soo demee suñu université yi bu ñu lay jàngal ñenn ñi te jàng ñi ay daan daf lay jàpp du maam dafa reetaan lu daal xool ku toll Sëñ Tuubaa jamono jooju njaareem ñaata seex ñoo nekk biir njaareem mm-hmm. biir njaareem képp ñu yëg ni sëñ bi génn àdduna fukki nit lañ boo ci bokk boo ci boolewul paal kii commandant paal ak mm-hmm. ak ak ak ñi ma àndal mm-hmm. ndax ñëpp ñëpp onze lañ donc ñi nga xamante ni sëñ Cheikh Fat Fat Tàkko Diop liste bi mu joxe onze la mais di ëpp na ko sax ndaxte boolewu ci médecin bi bi bi paal bi paal paal indi moom onze yi la indi mais commande napal rek la dugal ci liste bi mais dañuy gis ne kon ëpp na ko parce que médecin bi commande napal kon kii kii maam maam dugalu ko ci. Mhm. kon jëmmi Touba gi képp. Mhm. jëmmi njaareem li muy xumb xumb xumb dix personnes ñoo ko fi yëg. Mhm. bi loolu amee nag ñu yóbbu ko nga xam ne bi ñu demee ba Touba nag ci dañu woo sëñ Fallou ca Ndindi. woo sëñ Mbacke Bousso. woo sëñ Massamba sëñ Mas sëñ sëñ Dame Abdourahmane Lo. sëñ Dame Abdourahmane Lo. sëñ Moyon Bay Cissé. ay sëñ Mamour Diakhaté. ñooñu ñu woo leen. sëñ Baara gay waaw ñooñu ñëpp Cheikh Lamine Gueye mm-hmm. ñooñu ñëpp ñu woo leen nga xam ne ñi taxawu sëñ bi yëpp yëpp lim bi 28 la mm-hmm. ñoom ñoo taxawu sëñ bi mm-hmm. waaye it jàngat gi ci ne ci keroog bi mag ñi taxawu sëñ bi demeen biñ ko waajee ba def su lu dul marmaral maam nga xamante ni duuti moom moo des ngir liggéey bi noppi dañoo nodd bi ñuy defar sëñ bi keroog dañoo nodd mag ñi jug dem julli ba ñëw ñu àggal liñ doon def suñ Mbàkke Buso moo ko moo ko jullee sax. maa ngi noonu maa ngi noonu waxtu yi maa ngi noonu maa ngi noonu kon loolu nag maa ngi nga xamante ni nag suñu doxin nañ ko nattaat ci loolu mooy li ma wax sànq rek mooy am na doxin yoo xamante ni mm-hmm. jamono moo ñu ko imposé waaye du sëñ bi loolu nag ci féeteerlu tamit lay dugg mm-hmm. ci féeteerlu dugg moo tax bi ñu ñëwee nag ci la mag ñi nag gën a nangu matuk sëñ Modou Moustapha mm-hmm. ci noonu moo ko yóbbee Touba ndax la sëñ bi bëggoon am na tamit yóbbu ma Touba te bu xaddam ndax soo leen ma yóbbee Touba te xat damul bu boobaa wàcc ngeen maa ca des. Mhm. moo tax guddi xessi na Muharram ci la sëñ Touba wàcc ci la ci la sëñ Modou Moustapha wàcc wàccaale murid yëpp waaw moom ci la ko murid yëpp amee njukkal goo xamante ne moom fi mu toll nii ba ilaa yow di des ko ko fay. Mhm. te li ci gën a yéeme mooy bi bi bi sëriñ bi noppalu. Mhm. wàcce liggéey ci Zahir. dafa fekk ci dëndu sëriñ bi. sëriñ bi bind fa dénkaan yi maanaam li mu war a doxal ci gannaaw bi. waaw waaw loolu sëñ Modou Moustapha ko moo ko gis. Mhm. moo tax moom moo dugg ba ca biir fekk fa sëriñ bi mhm. bi mu ñëwee fekk na ci dënd sëriñ bi mhm. sëriñ bi bind ci bind ab lettre boo xam li mu war a doxal yëpp ci ginnaawam noonu noonu noonu la koy noonu la ko doxale waaw ndax lettre bi loolu la ñaan kaa jàng waaye mu ko jàngee dugal ko ci maxtumam waaw loolu moom na ndax fekk na ci moom ab lettre mu jàng ko dugal ko dugal dugal ko ci biiram waaye mat gi moo ngi noonu mooy mat gi mooy organiser na ko organiser boo xamante ni la sëñ bi bëggoon moom am na ko moom léegi ñun la ñu bëggaale nag duggaale ci ca ca ca loolu nag kon ci ci taxawaay bi ci yóbbu Tuubaa gi moom loolu lañ ci mën a wax. Mm-hmm. waaye bu fekkee ci njaboot gi. Mm-hmm. xam nga njaboot gi dafa da dafa dafa xawoon complexe. ndax njaboot gi dafa nekk ñaar mooy li sëñ bi doon wax ñaar njabootu deret gi. Mm-hmm. ak njabootu ruux gi. njabootu deret gi mooy ñi ñu mën mën a tuddee ñoom ñooy ñoom ñooy ay doomam. njabootu ruux gi muy taalibe gi. njabootu deret ji xaajale ko maam nekk ñaari xaaj. mooy ñi nga xamante ni mat nañ ay mag lañu ñu ko mën a tuddee noonu ak ñi nga xamante ni daanaka ku leen taxaw lañu xaar maanaam dañoo toll ci jàng ak tarbiya ak taxawu leen nga xamante ni ñi ci nekkoon mag mooy sëñ Fallou sëñ Basiiru sëñ Lamine ak borom dër bi te borom dër bi jamono jooju vingt ans la am ñi ci topp ki ci mag si Abdoulaye la te quatorze ans la am la tëdde da eh, nga xool maam sëñ Modou Moustapha mooy li ko sëñ Bay Jaxate waxoon rek. Mhm. yaay yeewu yaa mën a yeew ab gor bu doo dafa jug. Mhm. teraanga ngay yeewe ab gor bu doo dafa jug pinti panta nga ma loolu ko sëñ Bay Jaxate waxoon mais noonu la doxalee maam njaboot ji moom noonu la doxalee ñoom lii sëñ Bay Jaxate mooy yeewute gi ak teraanga gi kes képp la doxalee ak ñoom. na bu fekkee sëñ Fallou moom doon ko wax naan ko yaay sama sëñ Touba. Mhm. loolu doon xoole sëñ sëñ Fallou naan ko yaay sama sëñ Touba. bu fekkee sëñ Basiiru moom na mu doxalee woon keroog ba mu fekkee sëñ Tuubaa ca melokaan boobu noonu na mu njëkkoon ne ani Basiiru mhm. noonu la doxalee ba ni mu fiy jógee mooy lépp lu taxaw sëñ Basiiru la ciy diisoo mhm. moo nekkoon conseil am dëgg ci lépp nga xam ne sëñ Muntaxaa dafa ne li may binde di binde di binde di diggante sëñ Moustapha mhm. ak sëñ Basiiru mënuma kaa muñ nee moom li muy binde di binde di bind na ci moom ndax dafa ne ñaari gor yu raadu yu doon ànd lañ waaye nga gis ñoom ñaan ñëpp seen taaw ñu tudde pare jox ko ko sëñ Modou Boussa Dieng ak sëñ Moustapha Bassirou. Mhm. sëñ Modou Boussa Dieng di taw sëñ Fallou mu tuddee ko sëñ Moustapha jox ko ko ba mu koy ba muy gane ba mu koy tudd sax sëñ sëñ Fallou nekk fa. Mhm. sëñ Modou Moustapha moo ko tudd tuddee ko boppam. sëñ Moustapha Bassirou. Mhm. di taw sëñ sëñ Bassirou ñoom ñaan ñëpp mu jox leen mu jox ko sëñ Moustapha. nga xamante ni si amul tundeenu mi nga xamante ne doomu sëñ Modou sëñ Modou Moustapha la. bi ko sëñ Modou Moustapha yóbbee gànnaar bàyyi fi sëñ. Modou Bousso Dieng ak sëñ Moustapha Bassirou yàqkat yi sax wax nañ ci ne leen yéen seen doom yi duñu am xam-xam ndax doomam bi Amadou Tindéedu Mbàkke de yóbbu na ko gànnaar mu jàngi yéen seen doom yi nag mu bàyyi ko fii moom de bu ñëwee day day yilu seen doom yi mun leen ñaar ñi ni ma bëgg ci ñoom amul gànnaar léegi nag ku gis ñoom ñaar seen réalisation ci yoonu murit ci ngay doog a dégg nag la sëñ Moustapha waxoon sëñ Modou Bousso Dieng ak sëñ Moustapha Bassirou seen jamono ci yoonu murit mm-hmm. ku gis ci ngay doog a dégg la sëñ Moustapha waxoon ne ñaan ñi li ma bëgg ci ñoom amul gànnaar bu ko defee ñoom ñëpp mu jàppale noonu jàppale di kilifa nawloo leen nawloo bu ko defee li nga xamante ni moom moo jëm moom moo jëm di ko defee Cheikh Abdou jëm ci suuf mu taxawu leen Cheikh Abdou Lahad dafa ne sëñ Moustapha jur képp la ma deful moom loolu la sëñ Moustapha jur képp la ma deful da ngay sëñ Moussa mu ni Moustapha woo njëkk jox ay rakam naari góor teg baraaya jël leen soxna ñuy góor mooy taxaw gi leen taxaw nga xamante ni la soxna may doon wax naan ñoom ñu féete ndaw ñoom ñu gënoon a féete féete suuf ci ay at dañoo jàppoon ni sëñ Modou Moustapha taalib sëñ Touba la te jamono jooju moo ngi moo ngi di sëñ ñu jàpp ni ndax ni ndax ni mu leen fonkee ndax bu leen gisee li muy njëkk a def mooy làmb poosam nuyu leen ne leen sama sama doomu sëriñ bi noonu la daan jëflante ak ñoom nga xamante ni bis teg na leen ñoom ñëpp ñu ñu ba noppi ab ndab mu summi bubam di leen fomp leen ñu fomp ba pare mu ne ñaanal leen ma may seen taalibe baay maam ndaw loo googu naw loo gi nga xam fi mu toll nii ku nekk soo amee rakk rek da ngay jàpp ni autorité moo war dox sa diggante moom sëñ Saali bu mu koy tuddee doom sëñ maam sëñ Saali ambassadeur bi mu tuddee doom sëñ Saali boobu sëñ Saali ñaata at la am waaw sëñ Saali ambassadeur maanaam nga xamante ne ndaw loo gi mu leen nawloo mm. sëñ si Abdoulaye dëkk la ko may kàbbu nga xamante ni lépp rek fi mu toll nii bis dañoon dafa toog di yekk ndab sëñ Modou Moustapha fu mu mësaan a nekk moo daan jiite jàkka ja moo daan jiit ca tool ya bu góor bu ngoon jotee moom mooy tëral téere yi tey mooy yekk ndab mm-hmm. dafa amoon ak mat sëñ Modou mat mat gi kay foo ko takk moo ngoog moo moo roon seen Modou noonu mm-hmm. Kamal gi mat gi mm-hmm. neen day yekk ndab yi ba yàgg rek ñu ne ko ndab bi ndabu ndabu ndabu ndabu sëñ mu talaa la nee mu jugee ci suuf toog neen sama doomu sëriñ du ma yekk ndabam di toog ci kaw mooy ak nawloo dalee na a nawloo woon mm-hmm. moo tax fi mu toll nii ñoom ñëpp ni ñu mel mooy waxe si laat goog moo koy résumé mm-hmm. mooy lu dul jur rek jur rek la ma sëñ Modou Moustapha def mm-hmm. nga xam ne kon ñoom ñoo ñëpp noonu ñu mel ginnaaw gi moom la ak ni mu taxawoo sëriñ bi ci ci bi mooy ci ñaanal ko. Mhm. def naa mooy mooy màggalu. mooy màggal xasida mu xaram waaw ñaar fukki fan mu xaram. waaw mooy xasida mu xaram ndax ndax ci la ci la denc sëñ bi. Mhm. ci la ko jàngal tamit 28 euh, kaamil. Mhm. ndax 28 kaam bi. ci la ci la ko tënkee ci arafu Tuubaa yi. waaw loolu xam naa après bu ñuy tëj ma ñu ñu ñëw ci. incha allah waaye ba léegi ci ci taxaw gi mu taxaw njaboot gi. loolu ñoo ngi ci njabootu deret gi. ñoo ngi woon ci njabootu léegi bu ñëwee ci njabootu gi nag mooy taalibe yi dafa am ñoo xamante ni ñoom mbokki sëñ bi lañ ba daal dara dara mbokki sëñ bi la ba pare di bàyyi ci sëñ Modou Moustapha mbokki sëñ bi lañ ba pare di bàyyi ci sëñ Modou Moustapha loolu dafa am ci ñi nga xamante ni njaboot gi lañ mu am ñoo xamante ni ay seex lañ di ay kilifa ba pare mat ko bàyyi ci ay at yeneen taalibe yi doogu ñëw léegi sëñ Modou Moustapha ni mu jëflante ak ñooñu mooy teraanga gi gi gi gi sëñ Mbay Jaxate di wax. Mhm. ndaxte bu ñu bu ñu fàtte ni du ñëpp a wuy si woon sëñ Modou du ñëpp a ñëwoon mhm. waaye teraanga gi ko sëñ ndax sëñ Mbay bokkoon na ci ñi nga xam ne yéex nañoo ñëw. sëñ Mbay Jaxate sëñ Mbay Jaxate su ma daan bañit tey nangu naa ñëw naa ci yow mhm. nangul ma yow Moustapha Mbacke looloo tax mu won ko lool sama jëmm ngi sama lépp ngi sama ñëpp ngi. parce que dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñoom ñoom yéex mhm. moo tax mu ne ko teraanga mu ne ko yaa yeewu yaa mën a yeewu ab góor bu doo dafa jug teraanga. Mhm. ngay yeewe ab góor bu doo dafa jug pindi pantanga ma ndax mag ñi am na ñoo xamante ne ñu te am na ñoo ñi téye seen bopp daa am lu ko waral am na ñoo xamante ne moom ci ci njëlbeen la. Mhm. mais am na ñoo xamante ne projet yi sëñ Modou Moustapha dugg jëmmi projet bi après dinañ ñëw tolluwaayu projet bi ak te ñoom am na ci ñoo xamante ne ñemewuñu tubaab bi. mooy mooy lu war a taxawal jumaa ji. waaw ñoom ñu jàpp ni ñoom ndax dañ doon wax sax naan Modou Moustapha fii jamono toll. Mm. nga xamante ni metti gi mu metti mu gas àll bi naan day suuri naan day suuri day day suuli wañ. Mm. mooy jëmmi raay bi waaye bàyyi ko rek tubaab bi da fi ko jàpp dana fi ko jàpp bëccëgu ndar ndar kàmm di ko suuloo di ko suuloo pax. Mm-hmm. moo tax tenee bi njëkk a konne keroog ba mu konnee biñ ne ko maanaam tenee bi bi sotti xeet la dafa ne alhamdulilah dee su ma jàpp ba muy suuloo yu pax loolu la war a tontu yoon mm. nga xamante ni fi mu toll la mu waxoon la mu waxoon sëñ mu rek ne ko sama yaram bi jamono jii su fekkoon ni mbuus la mhm. mënta def pepp ndax i bënn bënn mhm. waaye lépp rek sëñ Moodu am ak mat mhm. xam ne dafa war a boole njabootu sëñ Tuubaa gi loolu nag fi mu toll nii murit gi faaw ñu xoolaat ci seen bopp ndax koñ boo dem téeméeri daayira nga fay fekk daayira yi kenn attantul daayira yëpp tas nañ nga xoole ko daayira yi nekk ci kaw ci yoonu mu di bay ci suuf daayira yëpp tas nañ xam nga dañuy dañuy jaawale ñaar mooy bëgg-bëgg sëñ bi mooy objectif bi yoon bi ñu sëñ bi tegal ak yoon ñi nga xamante ni ñun ñoo ko xalaatal suñu bopp ngir jekk liggéey sëñ bi bokkul bu fekkee yoon yi nga xamante ne ñun ñoo ko tegal suñu bopp ngir xalaatal li mooy charte daayira yi su naree dox suñu diggante bëgg-bëggi sëñ bi ana lan lañu war a bàyyi mm-hmm. mais léegi charte daayira yi moo tax léegi murid di xuloo kii di jaar fii daayira yi di tas te sëñ li mu bëgg ci ñun ñooñu booloo lool la gën a bëgg ci ñun leneen dul loolu moo tax sëñ Modou li mu daj yëpp li muy bari bari bari sëñ Modou muñ li mu muñ ngi dajale njaboot gi fi mu toll nag day mel ni ku nekk ci ñun nag day mel ni say sàtti daayira moom moo la gënal moom jëm bi bëgg-bëgg sëñ bi moom loolu lépp ay jafe-jafe la nga xam lii lépp dañ coo war a delluwaat jàngewaat ko ci sëñ Modou Moustapha waaw kon moom bu ko defee njaboot gi moom noonu rek la jëflanteeg ñoom teraanga yeewute ak teraanga moo tax bi mu demee ba nga xamante ni lépp nag sotti na nag moom fi mu toll nii mu jëlaat ba mu fiy jógee fekkaat na dajalewaat na njaboot gi yëpp ci ab say mm-hmm. maam ci teraanga ak yeewutam maam bàyyi ko fi ne ko fi sëñ woon mm-hmm. waaw kon moom njaboot gi moom noonu la jëflanteeg ñoom daal ci ci ci tënk jërëjëf sëñ Alioune point boobu am na solo loolu comme ni ko waxee rek daanaka daa wut sëñ Tuubaa ci ci fépp mm-hmm. ci njaboot geeg ci liggéey bi ak ci jaamu yàlla gi la ko taxawoo ba yóbbu ko Tuubaa ni mu ko defee lépp ci ndànk te dara yënguwul mm-hmm. ak ni mu euh, ni mu ni mu taxawoo sëriñ bi ci njaboot gi mm-hmm. comme ni mu ko waxee tamit ci jëm ci wàllu jumaa ji mel na ni jumaa ji tamit mm-hmm. bokk na ci li ko sëñ Tuubaa dénkoon ni ko taxawal waaw ji moom sëñ bi dafa ne woon sama loxo damm na ci ne sa loxo damm waaw mu nekkoon yi tey sëñ bi moo tax bi fi sëñ bi jógee rek vingt sept vingt huit mun leen jumaa ji ndax sëñ moon ko amuk dal la sëñ sëñ tubaab bi muy dem bàyyi fa utilisation jumaa mhm. ndax 4 avril 1927 ci la tubaab bi mhm. dajale ñu sant Mbàkke yëpp ci jumaa ji mhm. xooti autorisation bi mu joxoon sëñ bi nee nañ bu fi kenn waxati ji waxi jumaa wax ja bari lool ñëpp dal dal dal dal nee nañ bis boobu noonu sëñ Moodu waxul dara dafa toog fi mu toog rek ba nit ñi wax ji bari mu jug dem këram ko amoonuk dal la daal sëñ Moodu ko amoonuk dal la ko amoonuk dal la waaye sëñ bi ne ko jumaa ji sama loxo damm na nekk sa loxo damm moo tax bi mu ñëwee wax ak tubaab bi ci teraanga tubaab bi it sëñ Modou da kaa amaloon njariñ mooy sëñ Modou dafa nekkoon ku mën a maslaa noonu mm. mu ni moom mënuma kaa xañ jumaa mënuma kaa bañ a ñàkk autorisation ndax njariñ gi mu ko anal waaye nañ ko may jumaa xañ ko jumaa mooy nañ ko tegal ay charte yoo xamante ni moom su excès moom du ko attan mm. ñu ne ko jumaa moom matériel yi koy defar il faut que xam ni ci raay rek la mën a tege ndax dafa diis. Mm-hmm. mën na tege ci leneen. kon faw nga am raay diggante njaareem ba Touba sëñ Mbodj ne leen waaw loolu mën naa nekk. tubaab bi tegi saat ndax tubaab bi amoon na ñoo xamante ne ñëwoon nañ ngir defar raay yi nga xamante maam tracé yi nga xamante ne amoon na fii maam yoonu semaine defer yi nga xamante ne moo ngoon Sénégal mm-hmm. waaye àgguloon Touba njaareem la yemoon. ñu bokkoon charte ñu ne ko 1500 personnes la ñuy jël 1500 bu nekk wax ko ne ko cent gramme la ñuy lekk ci ceeb ceeb bi dawlin lay àndal ak ndawal parce que liggéey bu metti la ñoom duñ nekk ñuy ndaw danga leen di fay te it fépp foo xamante ne yoon bi jaar na fa te kooku maanaam mayewul toolam da nga koy dédommager ñooñu lépp lu ñu fa yàq yow yaa koy fay. raay bi 50 mètres la mètre bu nekk 200000 la muy 10 millions ci jamono jooju. <laughs> jamono jooju 10 millions. te 1928 joxe na 5 millions ngir ngir ngir titre foncier Touba te jamono ji ma la mooy sànq jamono jamonoy ràgg ak ràmm ak rafle. jamonoy ràgg ràmm ak rafle ci lañ nekkoon. crise 1929 daal di dugg si te doole ko si. nga xamante ni kenn xamul waaye njëriñu dëkk yi nag foofu lay doog a ñëwee nag. Mhm. parce que dëkk yi ba mu koy sos xam nga ressource en fait ressource naturelle la suuf si. Mhm. bay bee tax. sa dafay jàngale yar fa. Mm-hmm. taalibe yi di fa bay léegi lañ fay bayee noonu nag fi mu toll nii moom lay jëlee léegi di ko jënd ciment dëgg la même même bi ko Sëñ Tuubaa di laaj junniy dërëm mm-hmm. sëñ bi bi mu nekkee njaareem mm-hmm. mosoon na bind benn lettre di ko laaj boo xoolee mbayam moom moom la jaayoon jox jox Sëñ Tuubaa moo ngi noonu sëñ bi nii li tax ma laaj ko junniy dërëm dama ko bëgga a toll leeg euh, laylatul xad kii laylatul xadar bi nga xam te ni mooy alfu shahr mhm. moo gën junni weer daanaka bi bi addiye ji ñëwee Sëñ Tuubaa ay ay ay ay yëri la mooy mooy comme ni ñun suñu plan de développement dafa dafa xaw limité trop mooy que bu ñu xool développement fi mu day mel ni mhm. nit ki moom fi mu toll nii su jàngee am salaire bu ko mhm. permettre en fait boo xam te ne dina ko jàppale ngir mu mën a faj yéen moom en fait moom jàpp nañ développé am benn parce que bañ naan développement. Mhm. mooy luy en fait loo xamante ne day yokk ci économie bi. Mhm. bokkul loo xam day yokk ci am loo échange la mooy tey jii ki nga xamante ne dafa toog ci bitig bi jaay dem jë jox jëm ca borom lal ba jënd fa lal. Mhm. borom lal dem ca borom oto jënd fa oto. borom oto dem ca borom télé ba la ñuy def day tourner loolu échange la. xaalis yokku ci xaalis bi dañuy échange kii day jox kii kii jox kii jox kii jox kii mais loo xamante ne day yokku nag ci li amoon ci biir ci ci àdduna bi loolu bay la sàmm ak yi ci des. Mm-hmm. moo tax li ci mën a jàngatee ak bari maanaam sëñ Tuubaa kon. Mm-hmm. bi muy maanaam sëñ Mour Moustapha. Mm-hmm. xalifa sëñ Tuubaa bi bi ñuy wut sëñ Tuubaa. kenn ku ne li nga liggéey maanaam yaakaaroo ko ci àddiyay taali. daa fekk yow nga bay ci sawaar bu bari. mooy sànq sart la ci. ci bi. moo tax jumaa bokk na ci sart jumaay Tuubaa ji. sëñ bi muy wax sëñ Mour Moustapha dani ko. bëgguma xaalis gouvernement dugg ci. xaalisu maanaam xaalis bu lewul daal. dama bëgg taalibe yi taxawalal ko seen bopp. moo moo ngoog xam nga boo xoolee loolu day mel ni. Mhm. ak ak baatin da cee feeñ. Mhm. ndax boo xoolee raay bi. Mhm. février février 31 la pare. raay bi février 31. exactement février 1931. novembre 28 lañ ko tàmbale. février 31 mu pare. c'est-à-dire deux ans quatre mois lañ defar raay bi te ci charte bi tubaab bi da cee bokkoon ni su fekkee ni liggéey nañ ko ba sept ans te parewul ci diir sept ans yooyu noonu. loo ci defoon da nga koy perte ñu dañuy dem suñu yoon ndax bokkoon ci sart yi mais février 31 bi mu pare fekkee ni janvier 31 tubaab bi ci boppam. Mhm. waa France ñoom débloqué nañ ñoom budget ñoom fonds pour ñoom financer raay bi. boo demee ci rapport bi nga ko gis léegi xaalis boobu moom li gars yi di wax mhm. naan xaalis boobu moom ak lu mën a am moom duggul ci raay bi moom. dëgg la xaalis bi moom duggul ci raay parce que ñun février 31 raay pare. Mhm. fi mu ne ñee nag bi ñuy dégager budget ñoom janvier 31 la ñoom. nga xam ne ko la sëñ bëggoon moom ngir xaalis état bañ ciy dugg moom. Mhm. moo ngo gis nga. moo tax ci même màggalu ñaar fukki fan yi mhm. mu xaram bi. Mhm. sëñ Mourou Moussa da cee wowoon taalibe yi ak ak ak magu taalibe yi. di leen laaj addi ji war a ji. waaw bokkoon na bokkoon na tam ci ci bis bi. waaw xam nga boo boo boo xoolee xisiinam xaram bi dinaa ci naaj ñëw après incha allah. kom xam naa ni. biñ ñëwee ci ci jëmmi raay bi. tubaab bi teg ay chartam njaboot gi daje. Mm-hmm. donc ñu daje réunion ci ci ci ci mille cinq cent personnes yi niñ koy niñ koy niñ koy niñ koy niñ koy ci wee daal génnee ci njaboot gi mm-hmm. suñ Basiru joxe woon na xalaat moom moo xoon ni mm-hmm. na seex bu nekk ak ñi nga xam am nañ taalibe joxe juróom ku nekk ku nekk joxe juróom nit rek mbooloo mi dana mat ci mille cinq cent personnes waaye li ma la waxoon ñëpp wuy si ñu wuñu woon moo tax loolu du mën a nekk bu ko defee Cheikh Ibra joxe sept cent personnes sëñ ma numbe sëñ Modou Lo Ngaabu. Mhm. ak ñi nga xamante ne ci ci kilifa yi am nañ taalibe 1500 yi daal di mat liggéey bi daal di tàmbale. Mhm. novembre 1928 raay bi ba février 1931 cee raay bi sëñ Modou woote daan ni kat raay bi pare na ci jumaa ji laa mhm. nag lu ci waay am nag daal di wax organisation ku nekk joxe xalaat parce que sëñ Modou à tout moment démarche inclusive lay def. Mm-hmm. mooy na lu fi nit ñi xalaat. moo taxoon mu ne suma may dugg ci kàmb man rek mbooloo wa ciy dugg loolu noonu nag su ma demee bay ci kàmb mbooloo wa ciy mm-hmm. ndax noonu laan doxee ci la songu jumaa ji ba 39. Mm-hmm. jumaa ji 39 mais parewul dafa xaaj rek mu daal di yem ndax ñàkk déggoo amaan na ci njaboot gi. waaye it problème am na mooy 39 45 deuxième guerre mondiale. bu ko defee maanaam ci ci ci ci jamono yooyu noonu. la suñ la suñ Mourou Moussa taxawal li mu taxawal moo tax mu jaaxal tubaab bi. moo tax tubaab bi mu dee ba 1943 dafa woo sëñ Mourou ne ko ne ko réewu tubaab kat to président am France ñoom ñoo ko moom moo ko moom moo ko yónnee. ne ñoo ngi lay sant di la gërëm sa taxawaay. ne ko dañu laa bëggoon ñun réew yi nga xamante ni dañoo nekk fii Afrique de l'Ouest mhm. te ñun ñu jiital leen dañ laa bëggoon jël jiital la ci mbirum diine ji. ndax tubaab bi sëñ Mourou Moustapha jaaxal na ko jamono jooju nit ñi kër da leen maam néeg da leen a tëwoon mhm. sëñ Mourou Moustapha li mu taxawal mhm. sëñ Mourou ne ko de ñaar képp laa bëgg nga bàyyal ma ko li ci des ma bàyyi ko ak yow yoonu jàkka ji ak yoonu tool yi bàyyil ma ñaar yëpp li si yëpp bàyyi naa ko ak mhm. nga xam ne ñoom am na ñoom fu ñu tegoon ñu tegoon seen bët waa nga xamante ni gisin gu kawe moo tax sëñ Mourou am projet bi mu pore mu am gisin gu kawe gisin gu sori loolu ci yitte bokk jitte ngir nga am ko mooy jëmmi himma ji ñuy wax faw sa gisin sori faw nga am gis gu sori ginnaaw gis-gis boo am soree faw nga am fit li gis gi sori faw nga am fit ngir sóobu ko mhm. faw nga nekk jàmbaar jàmbaar mooy li mu laaj ci ay kàttan mhm. laaj ko ci alal nga daa ko ciy def faaw nga nekk ku mën a muñ mais ginnaaw la faaw nga nekk boroom xigma mooy lépp loo xamante ne mën nga kaa am ci maslaa nga bañ kaa bañ a am ci kàttan mhm. ndax loolu boo ko defee doo doo maanaam doo nekkoo borom xikma te bala ngaa àgg fa nga jëm da ngay sonn. Mhm. sëñ mu dafa boole woon nii. Mhm. moo tax tey jii mu mën a àggale liggéey bi fi nga xamante ne fa la ko àggale. sëñ Seydou. jërëjëf sëñ sëñ moom leer na nañ comme ni nga ko waxee sëñ Modou Moustapha kon bu ñuy jàngat jamono jii bu ñu ko doon roy. Mhm. ci wuutu kilifa. te loolu yaakaar na ñi fi ñi fi wuutu ñi toog xalifa sëñ Tuubaa ñëpp. ci yoon woowu lañ nekk. ndax da xool man damay jàngat ci eh, sëñ Tuubaa ñi ko fi wutu mm. da ngay seetlu ku fi ñëw dina def dina def doo xamante ni ka fi ka fi nekkoon defu ko mm. defu ko mm. kon dangay xam ni mbir yi maanaam day gën a jëm ca kanam rek mm-hmm. waaw bokk na ci kon eh, ñaar fukki fan mu xaram yi bokk na ci sekkareem man damaa gis ni commencement bi ñaar kaamil ak juróom-ñett la jàngaloon sëñ bi mm-hmm. mais léegi dem na ba 313 kaamil lañ fay jàng defe naa mm-hmm. te ba léegi nii moom lañ fay jàng ak xasida ak ñeenti xasida yi mu ci booleel muy jës bu mu xaddimaat euh, ak miimiya euh, ak muwaahibu nga xam ne bii fi sëñ bi jugee dafa dafa dafa dafa yebal fukki nit ak ñaar mooy ñaar fan mu xaram bu mu ñëwati bu masaani ñëw day yebal fukki nit ak ñaar ñu ñu ñu ñu wër jumaa ji kenn ku jàng benn kaamin mu yebalaat fukki nit ak ñaar ci biir jumaa ji la kenn ku ne jàng benn kaamin ak ñeenti nit ñoo xamante ni ci barabu suñu mag bi kenn ku ne da ngay taxaw benn benn benn koñ jàng benn kaamil ak ak ñeenti xasideem ci toftaloon moo daa yaakaar naa loolu mooy mooy woy ba léegi de ci ci ci kii bi ci màggal gi waaw moom mooy ba léegi waaye xam nga léegi day mel ni jamono jooju mbooloo ma ne mu tolloon ak léegi ne mu toll day mel ni na mm. ndax fi mu toll nii kër goo dugg rek Tuubaa fi mu nii daanaka la mu fay jàng kaamil dana dana ëpp fukk dana mm. waaye boo xoolee xis na mu xaram mm. ni nga ko waxee xam nga Sëñ Tuubaa ci boppam moo ñaanaloon moo ñaanaloon ko donc mooy li sallallahu alayhi wasallam doon ñaan ci ci ci bu julee ba nopp rek defal ma. Mm-hmm. bis bi gën sama bis muy bis bi nga xamante ne moom laay dellu si ci yow. Mm-hmm. loolu la Sëñ Tuubaa ñaanal borom. Mm-hmm. defal ma bis yi nga xamante ne bis bi gën xam ne moom laa de moom mooy moom laay dellu kon li wax kew rek naan képp koo xamante gëm nga ñaanu Sëñ nangu na moom. di gëm ni moom bisu xistina muharram 1927 moo gën a Sëñ Tuubaa ci bis yi. loolu la ñaanal beneen bi topp mu am ci loo xamante ni dafa moom dakaa bëggoon sëñ Tuubaa loolu ba ñëpp xam ko mm-hmm. mooy la mooy nga xam ne jëmmi sëñ jëmmi Tuubaa gi moom dellu bi mm-hmm. lu ko ñoroon la nga xamante ni rakkam yi dañoo dajale woon mbokk yi bind demande jox ko tubaab bi ne ko na dem benn bis rek yendu ji su dellu siwul ñun ñoo jàpp ñu mm-hmm. tubaab non maam rakki sëñ Tuubaa yi dañoo bindoon demande ne tubaab bi na may sëñ Tuubaa mu dem yendu ji Tuubaa nga xam bu dellu siwul bu fekkee ñoom dañoo jàpp ne daw ah. suñ tubaab ëpp na lool ah. bu dellu sigul moom mu jàpp leen hmm. maam Cheikh Anta maam Thiel maam Thiel sëñ Ba la caru ñooñu mu jàpp leen ñoom hmm. sëñ sëñ moom xam nga sëñ bi moom ko moom ndax sëñ bi ah. ndeysaan benn bis daa am ci gàmm gi jamono ñuy ji tubaab bi di di tere gàmm hmm. daa am mag bu gàmm si ñu ramaas ko waaw bi ñu ko ramaas ñu yóbbu ko mag mi defi pexe ba rëcc bi mu ñëwee ci suba si mu jàpp ni ngóora la toog ci kanamu sëñ bi di ko wax naan démb de tubaab bi dañ maa ramaas sëñ bi ne ko noo defa ñëw mun ko mun ko damaa daw. Mm-hmm. sëñ bi ne occam rek wan ko ginnaaw ci saa si. Mm-hmm. ne ko loolu de xaw ma foo ko jàngi waaye du sama kër gi. waaw mm-hmm. ah, ne ko ñooñu de diiru may ànd ak ñoom lii nga wax da ko sama diggante ñoom dellu. nga xam mag boobu moom noonu la delloo moom ci tubaab bi ne leen jàpp leen ma. ndax loolu nga xam ne moom loolu moom xalaatu ko woon. ay sëñ bi bëgg gi mu bëggoon a dellu si waat tubaab moom kon ci guddi googu la ko am. ñu ne lañ doon bëgg ci sëñ bi lañ doon bëgg ci bi ci guddi googu lañ ko am sëñ bi moom li mu bëgg ci boromam bëggal ñu ko moom ci tukkiing bi la ko am moom li mu ñu bëggal li mu bëgg ci digganteem ak boromam. Mhm. bëggal ñu ko ci tukkiing bi la ko am. waaye dafa nekkoon soo leen mu yóbbul Touba dana mel ni demaluma leen fenn. Mhm. kon ñun la ñu bëggoon ca bis boobu lañ ko am. Mhm. kon bis boobu kon lam làmboo jëpp dafa da dafa bari. sëñ Modou daane parce que sëñ Modou 27 la fi sëñ Touba jógee 36 lañ ca ko woote bis bi. bis bis bi li ci mat a xam mooy ndigalu sëñ Tuubaa ndax sëñ Moodu keroog bi mu ñëwee dafa génne ab lettre won ko sëñ Masamba ci boppam ne ko lii de bi ko ku baax ki di del di dénkaane maanaam seede nga ci sëñ ne woon ko ci bu bis bi dellu see ci bis boobu noonu déjaleel ma njaboot gi kon màggal Daaru Xudoos ci boppam mhm. màggalu boo teg Sëñ Tuubaa la Sëñ Tuubaa ci boobu moo ne njaboot gi nañ fa daje. Mhm. yi nañ fa daje. maintenant nag li mu doon la wax sànq mooy ñàkk diggoo yu amul ci biir. Mhm. moo tax ñenn ñi nag def ci ay kii ba moomule ko Daara Khoudoss moomule ko kee moomule ko kële. mais woo teg Sëñ Tuubaa moom. ndax sëñ Modou moo génnee lettre bi. ndigal la ndigal la. Mhm. wan ko sëñ Massamba ne ko lii seede nga ci. sëñ ma sëñ Masamba ne ko waaw nga xam ne sëñ Masamba bi mu ko génnee daf ne ko xis yi na mu xaram mag mhm. mi nee na moom xamul déggul arab waaye baatu xis yi na mu xaram keroog la koy a mu mhm. xaram ci mu xaram mhm. ne kon wooteeg sëñ Tuubaa la moo tax sëñ moo daan ni xaram yitte ju nit fanaan si Tuubaa moom xamu ko daan nag juboo naa ci sama borom ni képp ku ci fanaan si biir Tuubaa guddi googu noonu di nga mel ni ba ngay doog a juddi sa waajur bu jigéen ci bàkkaar daal képp koo xamante ni dafa yor lu war a jub si man lu mel ni addiya te nga gis ku bëgg a ñëw te yorul lu mu ñëwee jox ko ko te mu ñëw ndax soxlawu ma xaalis bis boobu noonu ruu laa soxla ñu fanaan si biir Touba kon guddi la goo xamante ni fi mu toll nii li may wax rek am na yu fi jaar ba ku nekk jàpp am ñu ko moomale waaye loolu lépp ay tur la woo wooteeg Serigne Touba la wooteeb Serigne bi la mhm. kon loolu dañuy bëgg aussi murid di ñu bàyyi ñu bàyyi ko xel daal. bax ba léegi. Mhm. maam comme da man damay gëstu tey it xam naa tëju ma man tëju ma sama kanam ci yu bari. Mhm. ba tax yu bari nit ñi dinañ ko dinañ ma ko dinañ ko wax ak man ndax du ma ci mérite te damay gëstu rek. ay mhm. ba léegi am na xeetu wax yoo xamante ne boo déggee nit ñi wax ko da ngay tiit. ba léegi. te sëñ mu Moustapha maam alhamdulilah sax ndax si xam mu Mountakha bi mu fi ñëwee ak ni ma koy màggale. tax na fi mu toll nii ñu bari maam joxaat ko joxaat ko benn gëdd gi. ndax suñu muntaxaa fi mu toll nii ci jumaa ja lay toog. Mhm. maam résidence lay nekk. ak waayu tarxiya mhm. ba fajar. mu daal di dugg ci jumaa ji dem ca barab ba. waaw loolu tax na ñu ñeneen ñi jox ko beneen gëdd waaye ñu xam ne daal wuuteeg Sëñ Tuubaa la moom. ñu bari dañ koy jàpp ni màggalug Daaru Xudoos. waaw loolu nag comme li ma sànq rek daa ñu fi jot a jaar. Mhm. yooyu fi jotoon a jaar moo tax ñenn ñi. feloon xel bi ñenn ñi ba gis ne leen bis bii kat Mm. bisu nakar la jarta màggal mm. ndax fekkoon na ñoom ci cosaan déggoowuñu ak sëñ moo sëñ déggoowuñu déggoowuñu daal mm. ay déggoo amul amul déggoo amul dëgg la mooy sànq comme li ma liñ ci njëkk a leeral mooy woote bu njëkk bi mm-hmm. boobu da cee woon taalibe yi ak kilifa yi ngir ñu dajale addiyee ji mën a tabax jumaa ji mm-hmm. Mm-hmm. mais woote wu ko woon sax ngir ngir euh, jàngi alquran ak wala nangam ak nangam gannaaw ba nag ci la ko kiyaat di ci di ci ci di ci ñaanal ku tedd ki xam ne ci lañ ko denc waaw waaw xam nga comme ni bu fekkee ndax ndax mm-hmm. comme ni xam nga waa Daaru Xudoos am na benn bi ñuy màggal mooy ñaari fanu kor yi waaw ñaari fanu kor yi sax ci li gën a siiw ci ci ci kii ñaari fanu kor yoo na waa màggal mm-hmm. boobu noonu sax la woowoon ngir jël lu jëm ci ci jumaa ji ci li gën a siiw ci li gën a not mm-hmm. waaw ndax ñoom moom la ñuy màggal waa Daaru Xudoos dañ koy màggal ba léegi ñaari fanu kor gi ci lay leen woon ne leen kat jumaa ji kat ci laa jëm ne leen nag yëguma nag laay bañ ko wax yëguma laay bañ ko wax waaye jumaa ji fi mu nii kat mooy sama yitte mm-hmm. comme que ni boobu raay ba pare woon na waaw waaye bii moom bi mu ko wootee moom comme ni ko waxee rek noonu it la ko màggale mm-hmm. ci ci ci ci ci ci alxuraan yi xasida yi ak benda yi daal ciy diggal aussi la daal ci daal ci garantir aussi lam ca garantir mm-hmm. kon bu ko defee it xam naa ni moom la ñuy waajal le 6 août bi incha allah kon bu ko defee xam naa di ñaan agg ci ak jàmm rek incha allah suñu boom nangu ñu bari xasida yi tamit incha allah jërëjëf sëñ Aline ñi ngi sant bu baax a baax a baax ci ci leeral gi comme ni nga ko waxee rek xam nga histoire moom daanaka kenn ku ne ñi wuute ak wuute mënu cee ñàkk mm. Mm, mais comme waa raw du rayaaxin moom mm. kii biñ ci bind journal biñ bind ci màggalug Daaru Xuddus gi daanaka point yooyu bari leeral nañ ko ci sànq bi may wax tamit kaayam bi suñ Moustapha bindoon te suñu ku ñuy wax Abdoulahi nduur ah. Abdoulahi Ndour moo moo moom la maam Cheikh Anta ah. yónnoon Gabon léegi kaayam bi suñ Moustapha bindoon moom moom la Abdoulaye Ndour yóbbaale Gabon. dëgg la waaw te kaamil boobu Kamal lañ ko tuddee woon Kamal. dëgg la moo tax ñu woowee suñu Moustapha. Cheikh moom Moustapha Kamal. dëgg la waaw dëgg boobu moo Cheikh Abdoulaye ku ñuy wax Abdoulaye Ndour sànq nag damaa tuur jiwoon ci tur waaw kon ñu ñu jéggal ma ko bu baax a baax waaye waxtaan wi wax dëgg yàlla leer na nañ tegu na ko tegu na ci xam-xam niñ ko sàkk woon ci yow matale na ko ñu ngi ñaan suñ boroom nangul nangul ñu ko def ko àddi suñ tuwaa xaadim rasul te eh, ñu lépp luñ ci wax rek suñ Moustapha ñu fas yéene koo jariñoo mm-hmm. jàngate xam ni mm-hmm. kilifa moom ki ko war a wuutu tamit daa war a doon ku ñu waajal mm-hmm. ku ne xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha suñ tubaa moo ko waajalal boppam moo ko yaral boppam moo ko àggale ci yàlla moo mook Cheikh Mouhamadul Fadal mm-hmm. kon euh, mel na ni euh, ko maanaam waajal ko suñ tubaa waajaloon ngir mu taxaw ko ginnaawam lépp matal matale na ko mm-hmm. ñun murid yi mën nañ koo seede mm-hmm. daanaka fekkee wuñ ko waaye liñ bind ci moom ni noonu la doxalee yoonu murid mën nañoo seede ni kon li suñ tubaa bëggoon ci moom matale na ko kon yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla yóbbu ñu ca bis ba ak jaamu suñu Alioune sant nañ bu baax a baax a baax waa Majmahun Nurayni ñu ngi lay sant bu ba a baax a baax ci ñi nga xam ne ñoo jàllale liggéey bi suñ mhm. Mbàkke jiitu ko ñu mhm. leen sant bu baax mhm. di leen gërëm ñaan suñu borom dafa ñu tawfeex kon xam naa dinañ amaat yeneen plateau yoo xam ni euh, ci émission Dialibatoul Buur lañ koy jàllale jëm ci euh, waajale ko màggalu Tuuba fas yéene cee waxtaane euh, ku tedd gi mu Cheikhul Khadim jaar-jaaram ak ay am njàngaleem kon xam naa incha allah du yàgg rek ñu jàllale plateau boobu ñoo ngi yemale foofu émission bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu